toog ko bañ baa ko ma jaan ni nekkoon ma dugg ci biir ko ko laay bañ baa ma ma dugg te eh, dama ne ëmbaloo ëmbaloo ñu di la ñaanal nga xëy wasin nga ne na mos nga boot na bañ baa ko mën a jand nekkoon ma ci biir ko laay bañ baa ko ma jaan ni nekkoon ma dugg waali kuy ndayam jaagaay ndayam waali kuy baayam wuy coonay baayam teewaale coonay sa baay way ko jaagaay sa yaay way ko sa baay dakaa gërëm ba mu neex ko mu def ko kaset waali dundal dundal ba mu neex la kenn du la téye Sénégal nga juddoo fi nga màggee di def lu baax ci digg réew mi kenn du ko dindee waali kuy ndayam jaagaay ndayam séeri soxna ay dara sama jeeg bu baax boobu mooy soote bi yon nan waaye moomi sama waaji dinaa la wëyal waal yi da ngay jox nag naar waal la ci cere ji bëy ji moo